dikkati naa suy bale la wala yëngal kësam le quotidien le quotidien ne boo moytuwul day set setal la laas yéen kaay ne ko déet yëngal kësam guy gi kay la président Macky Sall def ni ki démb mu jëm ci magistrature bu réewum Sénégal tribune yéen kaay ko président Macky Sall démb dafa def coppite ci bii teg ci bee bee ko rajax mbir ma yëngu na magistrature bi am nag coppite le soleil yéen kaay ne coppite yu rëy kay moo am ci biir magistrature bu Sénégal ni ki démb l'enquête quotidien ne ko Macky Sall kay daal dinay jaxase carte gan ak sax faf sud daal di may xamal moom président Macky Sall daal di nay soppi magistrature ba procureur de la république ak doyen des juges soppi na leen réew mi ne Macky Sall ci boppam daal di nay tabb nag Ousmane jaañ procureur général Omar Maham Diallo mu def ko doyen des juges bu yees bi direct news daal di may xamal ne moom kay Serigne Bassirou Gueye dañu ko remercier ne ko jaajëf da ngay dem toog tribune yéen kaayib des médias bi ne ma Omar Maham Diallo moom mooy doyen des juges bu yees bi waaye Ousmane Diagne mooy procureur général Serigne Bassirou Gueye Amadou Diouf moo ko daal di wuutu juróom-ñetti at moom la nekk ci bopp parquet bi moom Serigne ba Gueye mu mel ni nag sax ba tey ba ñu koy dàq pareegul doyalul ay dossier yu yees war a xaar nag Amadou Diouf mii waaye tam ma xam jàllo le quotidien le quotidien ne en attendant Serigne Bassirou Gueye moom ma nga ñu yóbbu présidence de la république juge bi di Souleymane Teliko ñu talal ko ba Tamba cour d'appel bu Kaolack moom it andi nañ fa ay coppite laas yéen kaay daal di may xamal ne tribunal bu Tamba boobee nga xam ne yóbbu nañ fa juge Teliko léegi nag matale nañu mu manqué woon tribunal bu commerce ba sax daal dinañ koy faf renforcer turbine yéen a kaay ne ma li am te des mooy moom na le lu dul yi di leen toñ toñal ak fitnaal mbuubaa mbàcc ku ci wax mu yóbbu tout cas direct news ne lees ci mën a mooy dikkaatug nag doole procureur bii di Ousmane Diagne a kaay moom dafa daal di laaj juge Téliko nga xam ne daal di nañ koy yóbbu ba cour d'appel bu Tambacounda mbaat nañ ko bëgg a tegub daan moom juge Téliko ko source aaneyi lii kay dafa mel ni ab sanction la gën a nuru ndax itam ak coow lu metti dox na diggante juge Teliko mii ak ministre de la justice yéeni kaay bi daal di may xamal ne Souleymane Teliko mi nga xam ni moo nekkoon président bu UMS dafa laaj maître Malick Sall ne ko dëgg-dëgg la ma waroon ci liggéey saa su ne maa nga ca woon musuma ci xaar musuma tardé sama liggéey te ma masuma ca defit lu warul lan moo waral nga yóbbu ma Tamba ci yóbbin boo xam ne jaarut yoon maître Malick Sall daal di koy tontu Teliko ko damaa soxla nag ay nit yu am de ndax Abdou Khadre Xawsu Diop ancien secrétaire général bu UMS sanctionné nañ ko yóbbu ko feneen am na beneen collaborateur bu jege lool Téliko boo xam ni moom it bëggoon nañ ko affecté fu sori lool waaye dafa am ay jafe-jafe wérgu yaram loolu lee moo ko sowe nguudam bu ci tribune yéen kaay moom président de la république Macky Sall ak ministre de la justice bi ñoo war a génn ci conseil supérieur de la magistrature génn ci seen loxo nag ba mu ak benn moo ci des la ñu ci diggante du am yooyu la élection ndax nag ci benn wàll ba ay xëccoo ma fay am ay xeexante ci seenug biir ca beneen wàll wa nag wóoruk amam ca la ñu ne tribune yéen kaay daal di may xamal ne daal di nañuy valider candidature coalition gëm sa bopp gannaaw recours-am ca Vélingara kon foofee waa gëm sa bopp daañu bokk ci élection locale 2022 yi source aanée en tout cas Abdoulaye Diouf moom ma ngay doxal soxna bennoo bokk yaakaar amal nañ mobilisation bu takk lool fii ci Dakar laataa midi ñu xam ne Abdoulaye Diouf Sarr mooy boroom 24 heures yéen naan déet xanaa da ngeen fàtte yéen ne am nay ndaw yoo xam ne ñu ngi bokk ci yéen te ànduñoo ak yéen ndaw yooyee amul lu nu yekkul Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Sow ndaw Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru ne Abdoulaye Diouf Sarr Macky Sall da koo tabb nag ci bopp Ndakaaru ngir mu doxal boole waa Benno Bokk Yaakaar yëpp waaye dafa tànn ay ñoñam def leen ci liste yi ñun nag yeneen ndaw yi nga xam ne beddi nañ ñu xool na ñuy doxalee ak moom waaye duñ ko voteel l'indépendant ne moom président Macky Sall la mu def ci njuumte ci réewum Sénégal dafa bari ne en tout cas bay la wan mi ngi xam le nii kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko xam na ko ne du xaatim charte non violence te gindigal Serigne Mountakha la ndax Serigne Mountakha bokk na ci ñi dëggal charte boobee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si si turbine yéene kaay ne man la kàddu Ousmane Sonko yi bettuma benn yoon mu njaay Cissé ci 24 heures yéene kaay ne deesul nag fël gémmi ñu sàmba te xamoo la muy walis de déedéet Ousmane Sonko kàddoom yii jarta dramatiser nañ ko teg ca wax lan la l'observateur ne Kabirou na wax wax na daal dinay premier ministre ak rakam ñoo tax ba wari jëndul tigo waaye tam nguur gi ñoo seetaan di xool ban xooxatal xooñoñal ba daal di fat wari libération yéeni kaay ne ma maire bu Malika day mi ngi ci jafe-jafe yu metti lu toll ci juróom benn fukk ci plainte jébbal nañu ko ko l'observateur ne ma Amina Badiane de plainte ba mu doon wax dëggal na ko mami ko bu femme chic ak Kader Gadji waaye tam x xanaa ñu na ñoo ñee la ci daal di tudd libération yéeni kaay ma am na beneen plainte boo xam ne beneen miss woon moo ko daal def ndax nee na nag identité bi ñu génnee te warul DSC ma ca mbir ma jam ra it yéene déposé plainte alxamis bi l'observateur xëyee ab l'enquête ci soxna yi nga xam ni am na nañu borom kër ba nuppi waaye itam ci baar yi la ñuy fanaan tàmm gu jur laago la wala tayeef la laaj ba samp na bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen nag personne on ne négligera rien du tout conseil supérieur de la magistrature euh, ñëpp la ñu doon xaar moo di ka ñuy bu def ko doyen des juges kon nag ñu mujjee tabb moo di ma euh, Maham jàllu moom moo fa wuutu ndem si yàlla si euh, Samba Sall moom moomee nga xam ne moo nekkoon président bu cour d'appel bu Ziguinchor ñu ànd si Fatoumata Diop. lu waay doon jaay tey mu lamb xam nañ nag doyen des juges bu yees bi muy yëpp magistrat Maham Diallo remplacé nag juge Samba Sall ci poste bu ni mel ginnaaw nag ba mu génnee àdduna ci weeru avril gi ñu génn feebar bi ko tëraloon magistrat bu ni mel nag moom la ñu tànn rek ni ki tey jii ci réunion bu conseil supérieur de la magistrature ak conseil boo xamante ne nag day réunir rek ñaari yoon ci at wi ci nag convocation bu njiitu réew mi bu ñu sukkas ndikoo ci article 6 organique numéro 2017 11 du 17 janvier 2017 moom moo nekkoon nag njiital cour d'appel bu Ziguinchor nekk magistrat bu dal waaye itam liggéeykat bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay xibaar yu jukkee ci ay collaborateur am waaye tam nekkoon na fi juge ci tribunal bu grande instance hors classe bu Dakar nekk it conseiller ca cour d'appel bu Dakar ci noonee nag mën nañu wax ne rek am na lu toll ci juróom-ñett ci ay cabinet d'instruction ci tribunal bu grande instance bu Dakar ci yu ni mel nag ñu ngi koy confier doyen des juges mi nga xamante ne moom moo di Oumar Maham Diallo mi nga xamante ne moom la ñu tabb bu yees ci fàttali ñaari at a ngi nii ñu gile conseil lu nu mel nag indi woon ay njeexital ci lenteur yi ñu nemmeeku ci traitement yenn dossiers yi waaye tey ji doyen des juges bu yees bi am na liggéey bu koy xaar muy dossier yu tàng yu baree bari nekk ci table bi bokk na ci nag dossier bu leader bu opposition bi nga xamante ne ne ñu koy tudd ci ab dossier masseuse bii di Adji Sarr waaye itam dossier bu Bougazelli mi nga xamante ne ba tey jii ñu ngi ko suspendre. mu ngoog ak coppite am na kon ci euh, magistrature bi euh, le député du peuple noo ko jàngate lu am solo la Serigne Bassirou Guèye def na juróom-ñetti atam euh, ak ay jaar-jaaram ci wàllu politique nag bari woon coow lool mais mu dem ci ak courage ak détermination donte woon ni bari na lool nag lu Sénégalais yi posé ay question ci conférence de presse yu jàmp yu mu defal ci dossier Karim Wade ci dossier Khalifa Sall. Ah, euh, ak yeneen dossiers yi nga xam ni dañ ko ci interpellé lu bëri bëri te euh, euh, xëy na li mu ci xaw a xew a yeex gis nañu itam bi mu defee conférence de presse ci dossier Franck Timis comme ni ko Alioune Badara Sonko fàttalee sànq mais li ci mën de am xëy na justice noonu lay doxee ndax dañuy tànn ñi nga xam ñoom ñooy tooge toogin woowu noonu muy nekk procureur de la république gis nga d'ailleurs moo tax président chambre d'accusation la ñuy jël def ko procureur de la république koo xam ni chambre d'accusation xam nga li muy tekki donc faaw mu nekk benn nit boo xamante ni bii xëy na xuux du ko dàq xuux du tax mu reculer dina am ay principe mais nit koo xam ne la ku histoire di bind ay jaar-jaaram la euh, moom procureur de la république donc changement bi am euh, lu ci am solo la euh, li ñuy xalaat rek mooy xëy na xeetu ndaje yu mel nii ñu koy gën a ñu koy def comme ni ko seen yoon binde muy loi organique bi wante itam ñu fexee ci seen wàllu politique judiciaire ñu gën a yokk mu magistrat yi pour dossiers yi gën di gaaw gën di bar maam boo boo boo defee ay gëstu ci tribunaux yi dossiers yi nga xam ne bougé wuñu surtout li ñuy wax ay affaires civiles euh, litige yi am ci wàllu suuf yeeg yi am ci wàllu sëy yeeg nangam nangam da ci gis ay dossiers yoo xam ni temps bi muy jël dafa yàgg benn yàggaay boo xam ni da nga xam ni personnel bi xaw na des donc sas la ci njiit réew mi ngir mu gën a baral jéego yooyu quant nag ci wàllu politique moom naka jekk nag procureur de la république moom toujours day dox ni gouvernement di doxe parce que fu mu nekk ministère de la justice moo ko fay teg donc mënul def à 100 pour cent lu satisfaire xëy na ñu am ba ne gis-gis bokkul ak gis-gisu pouvoir. Mhm. voilà euh, euh, Birahim euh, muy procureur du doyen des juges yu yees yi ana yan dossier moo leen di xaari te ñu gën a fës. mais dossier yëpp. dossier bi ci premier dossier bi xam nga mooy ban. du question kaaw diw wala dossier diw mhm. mais le premier dossier mooy fexe ba lu ñuy woowee indépendance la justice ñu gën ko affirmer indépendance de la justice donte euh, jàpp nañu ci réewum Sénégal ni justice amul indépendance mais ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu fal euh, teg leen ci yenn ci ay poste am na ci ñoo xam ne mhm. expérience lañ ci am ki remplacé par exemple tey sëñ Bassirou am na trente ans d' expérience euh, mhm. muy procureur de la République Amadou Diouf procureur sénéral bi may tudd sànq muy euh, euh, sëñ Ousmane am na tamit expérience ñoom ñi fa nekk ñëpp ci magistrature mm-hmm. euh, muy du siège di de debout magistrat debout yi ku ci nekk am nga expérience boo xamee ni tey li nga war a gën a mën a fësal mooy lu ñu wooyee indépendance la justice mooy le premier dossier sur le lequel ñii di magistrat yi war a liggéey mais leneen li nga xamee ni tamit war nañu fexe ba àgg ci loolu Souleymane Teliko da ko doon wax beneen magistrat yeneen magistrat di ko wax mooy nañu fexe teggi euh, tutelle bi nga xamee ne mu ngi jóge ci présidence de la république ministre de la justice ci kaw magistrat yi parce que tey ba léegi lii di ay changement yam conseil supérieur la magistrature kan moo ko jiite ba léegi président de la république moo ko jiite mm-hmm. est-ce que dinañ àgg ci bés boo xamee ni day am benn rupture cordon ombilical boobu diggante l'exécutif et le judiciaire peut-être bu ñu àggee ci loolu un jour dañ mën a vraiment yuuxu indépendance à la justice parce que dootul amati euh, benn euh, imbrication wala benn lien boo xam ne daf leen di boole muy justice ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy exécutif donc seeni dossier au delà de dossier politique yi nga xam ne mu ngi fii wala ñuy wooye politico judiciaire yi fi ne mais seen premier dossier looyu lay doon mu ngoog ñu doxantu ba sa daara Jolof xam ngeen ne démb ba jot nañu sa waxtaan sax euh, le député du peuple ndax foofee euh, euh, na l'école ya ëllëg bu 18 heures jotee la ñu koy tëj si diiru ñetti fan ndongo du ñu jàngi ndax nag fëskee ne li nga xam ne moom mooy événement boobee l'école ya nee nañu dañu koy jël jagleel ko gan ya ngir mu teeru leen loolee nag waa COSYDEP def dañu koy ñaawlu di xam ne ne kon jamono ji nga xam ne l'école yi sax quantum horaire ba Covid bi daf koo laal lu bari kon nag ani lu war waral ñuy jël ñetti fan di tëj l'école yi euh, ci ay gan ñu teew lu saykat yu tukkee ci Alioune euh, Alioune Loum responsable suivi évaluation sa ko si depp bés bu ñu jagleel élevage tax ba ñu yóbbu ndongo yiy jàngee daara donc vacances c'est-à-dire dinañ toog ay bés ñu jàng nekk na pour ñun une forte préoccupation tey ko xam ko si depp xam ko ci combat bi ñu mënee pour que li nga xamante ne moo di respect temps d'apprentissage bi mu mën a doon loo xamante ni dëgg lay doon ci suñu école yi xëy na mën nañu xalaat organiser activité yii nii ci période de vacances su ko defee du perturber li nga xamante ni moo di heure de cours yi te pour fàttali li nga xamante ni moo di quantum horaire bi dafa am solo ci li nga xamante ni moo di qualité apprentissage yi te bu ñu fàttee ko ni Covid 19 bi tax nañu perdre bokk de temps te actuellement li war mooy que ni ñu xool système bu ñu mën a maintenir élèves yi ci biir l'école bi. bu ñu mën a rattraper lépp li nga xamante ne perdu nañ ko. ci loolu engagé nañu li nga xamante ne moo di suñu antenne régionale bu luga pour que mu mën a le plaidoyer ci ñi nga xamante ne ñoo di autorité locales yi pour que ñu xool lu ñu mën a compenser heure yi nga xamante ne donc dinañ ko perdre ndax célébration journée de l'élevage bi. mu ngoog ñetti fan ñu war a tëj l'école yi foofee sa daara jolof loxo dar gémmiñ sawru seen nee na kawteef gënuta màgg lu ni mel ndax nag laalewul dara maanaam bëccëg bi ñu jagleel wàllum sàmm gi ñu war ko rek jëmmal laalewul dara lekkool ba kon andi nag lu waral ñu war a mën a tëj lekkool yi secrétaire général bu SAEMS ba noppi nekk coordonnateur bu GSS mooy ni xamle mi ngi interpellé di joxoñ baaraam euh, jëwrum ñu dénk wàllum jàng mi nee na ko na nga jël say responsabilité bu ñu sa tolloo sawru seen ay kàddoom dafa jokkoon day di mendaw ci téléphone waaw euh, dégg nañ quand décision bi nga xam ne euh, inspection d'académie de Louga jël na ko jël vaquer faire vaquer les cours euh, fi nga xam ne mooy Daara Jolof parce que ci lu ñu wax am na journée boo xam ne dañ ko wala déjee mbiru élevage ñu ne quand loolu dañ ko condamné parce que mais ñëpp xam nañ ni quantum horaire bi Sénégal doyul bu dee nag quantum horaire bi doyul te ay activités yu mel noonu tax ñuy arrêté ay cours mais loolu ñun mënuñu ko nangu suñu responsable au niveau régional condamné na ko au niveau national donc nous le condamnons te wax ministre de l'éducation na jël toutes ses responsabilités par rapport à ces situations là parce que def di ay situation yoo xam ne kenn waru ko nangu nii jàngalekat yi nii parents d'élèves yi encore moins l'état du Sénégal bi nga xam ne moo amee mais le système éducatif sénégalais. Birahim ëllëg maanaam àllarba bu 18h jotee la ñuy tëj l'école yi foofee sa daara Jolof si diirub ñetti fan ngir nag journée de l'élevage noo ko jàngatee. mais ñàkk fulal école euh, man loolu laa ko jàngatee euh, et je pense que euh, ce ne serait pas de trop que ministre de l'éducation nationale rappeler à l'ordre ki nga xam ne moom mooy inspecteur de l'éducation et la formation bi nga xam ne moom moo jël boobu lay dogal pour lan pour dal ay nit. ci beneen activité boo xëy ni ça n'a absolument rien à voir ak école xam lan moo euh, mooy gën a firndeel tey nii Sénégal dañoo joxul fulla lii di jàng bi dañ fi waxoon jamono yële mbirub euh, tenue scolaire ne dañ ci dugal nangami milliards jàppale waale ñi nga xam ne ñoom ñooy yenn artisan cool dégg nañ ci li ci li ci mujjee xam nañu Euh, nu mu mujj demee euh, ku ci nekk yaa ngi koy kaas mais tey ci lu jëm ci journée de l'agriculture mais ana meeru Daara Jolof wala euh, ndax amul infrastructure yu mën a accueillir ay nit ba ñu war a génne ay élèves ci seen classe génne leen ci seen i école te bu doon dafa yem ci benn tranche d'âge sax mais muy primaire bi muy élémentaire bi ba ci sax secondaire ñu génne leen diirub ñetti fan

Euh, juste pour faire plaisir au prince ni ñu koy waxee parce que bëgg naa lu neex mam bay naa def benn acte boo xamee ni bu ëllëgee ñëpp mën ma ko reprocher mais moom mi nga xam ne moom moo jël boobu lee décision tey yaakaar naa ni bu xoolee lii ji ay réaction ci lu jëm ci décision boobu mu jël mu war a mën a dellu ginnaaw et que trouve des solutions pour bu fekkee dafay amal ay activité mais dañu wut euh, yenn ci ay infrastructure yu ñuy dalee li ñi xam nga lu muy wane lii daneen mooy ni y'a même pas d'infrastructure bu mel ni hôtel wala auberge ci yenn ci ay euh, dëkkuwaay ci biir réewum Sénégal ci yenn ci ay gox ci biir réewum Sénégal te pourtant dañ dañ fay dalal ay activités yu mel Daara Jolof ku ko xam-xam ne mbirum sàmm Euh, euh, moom pratiquement foofu la fekk baax muy cheptel bi nga xam ne moom la ñu yore muy ay nag di ak lépp lu jëm ci wàllu jur mais nañ leen wutal sax même bu dee maison de l'éleveur boo xamee ni foofu euh, ku am gan mën nga ko fa dugal ci lu jëm ci ay journée de l'élevage wala yu ni mel ni mu amee ci yeneen i diiwaan ci biir réewum Sénégal ñu am maison de la jeunesse wala ñu am conseil de n'importe quoi mais jël ay élèves génne leen ci seen classe pour lan dalal ay gan yoo xam ne ñu ngi jëm ci beneen activité boo xam ne na sax ak activé wu jàng je pense que c'est à la limite ridicule pour euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy le ministre de l'éducation nationale ak yépp démembrement yoo xam ne ñu ngi war yëngu ci wàllu woowu. est-ce que gënul woon comme te ñun ay nañ lool ci ay abri provisoire def ay tant jagleel ko ñi nga xam ne euh, na nekk bu fekkoonte woon ni respecté nañu ñi ñuy fekki ñu def ay abri provisoire ñu def ay tentes comme tente boo demee journée de l'élevage tànt ba ñu fay def di ko taxawal daanaka xaw na egg fii ak Saint-Lazare ci ya guddaay am réew lay doon mais foofu mooy tànt bi ñu waajal climatiser ko parce que fa la DG yeeg ministre yeeg président di dugg parce que ñooñu la ñu jox considération waa waa daara li ñu leen wax mooy génne leen seen doom yore sàkku xam-xam dañu soxla école yi pour yow suñu ay nakk génne leen seen ay doom yi jàng école doon avenir ëllëg parce que dañoo soxla suñu fu ñu fat suñu ay ndënd ak suñu ay sabar génn leen seeni ay école te ngeen téye seeni ay doom dañuy indi nit ñoo xam ne dañuy taxawaalu di jaaba jonge pour ay fan journée de l'élevage xam nga kañ lay commencer à partir de dix heures balaa di sept heures mu jeex ay quelques waxtu dong la mais balaay booba ñay monter tente ya ñay indi courant ba tëggkat ya feccikat ya taasukat ya def katu kalan ya ña fa def ñetti fan def fa seen ay jombe yooyu yëpp dañ koy comptabiliser waale ci bis bi ba tax na ñu ni xale yi yéen yéen waa dëkk bi téye leen seen ay doom parce que li ñuy def fii nii euh, xajul ci seen i boppi doom noonu dong laa ko mën a joxe comme interprétation ci koo xam ne dund nga journée bi dem fa fekke ko gis lañ fay def c'est-à-dire euh, caaxaan baaxul dem maa ngi koy wax fii ci wàllu élevage bu ñu ko bëggee dooleel am na fu ñu koy jaarale mais mënoo dem ci ndaw yi nga xam ne dañuy judd fekk seen papa doon ay sàmmkat mais façon sàmm boo xam ne tey dafa dafa révolu dafa soppeeku ci àdduna bi yëpp nga bëgg doom yooyu jàng am xam-xam dox ni àdduna bi doxee fekk seen papa ca fa ñuy sàmmee ñu jàppale leen mais indi ak coppiteef ci wàllu càmm gi yéen xale yooyu njàng moom ngeen di jàng vraiment amul importance suñu mbumbaay mi ñuy def pour waxtaanee wàllu élevage moo ñu ëppal solo affaire bi du benn affaire bi politique la bu ànd ak ay plan yoo xam dafay continuer toujours ngir ñu soppale élévage mais li am li am li am daara ni kenn xamul lan la tudd ma manque de respect kese kese la ñu gis ak ñàkk jox fullaal population bi nga xamante ni bi ñoom la ñuy fekki bis boo xam ne Mumbaay la bis boo xam ne taasu la bis boo xam ne ay kalan la ba ci parole yi ñuy joxe ay calan la bis boobu maam bu texee ñu tëj école ñetti fan manque de respect la ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekki en tout cas damaa foog ni njuumte gi ñuy juum ak ni ñu koy commencé dénoncer démb ak léegi vraiment daa ñu soppi aw doxalin et euh, ñoom lu ñu jotee ak école ba. parce que parce que maire fa nekk amuñu benn vision ci tabax infrastructure mais seen tente ya ñuy monteel bos ya fay dem di fa toogi nañ monté yeneen tente yi mel noonu def ko ay ay ay chapiteaux ñoom ñu fay ñu fay fanaan. lu tax ñu bëgg a ñu bëgg jël école yi occupé ko ah parce que école yi xëy na fa la ñuy dugal seen nag yi ngandee ja ay 10 millions ñu leen dugal ci ay auto climatisé dem wàcce leen foofee daara dañu war a nekk ci benn place boo xamante ni bii day méngoo ak cee langue parce que bëgguñu ngelaw ak tàngaayu daara bi da rey seen nag élevage yooyu. damay hmm. poser question parce que gisuma raison bu mën a tax. ñu génne xale yi ci école yi pendant ñetti fan ci loo xam ni ay quelques waxtu la foofee ci ci ci ci Jolof en du ñu jar a dénoncé la. Mhm. xalaat naa ni gars yi daañu reculer ci décision bi parce que kenn xamul lu muy saf. wàllum jàng mi sax la ñu yàddu euh, jëmale lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay jàngalekat yu nekk ci daara yu suufe yi maanaam préscolaire élémentaire ak yu digg doom yi te ñuy jàngale arab ñoom nag euh, jot nañu am renforcement de capacité yokk seen am xam-xam lépp nag nekk si jàppandalu inspection d' bu Dakar si euh, jàppandalu git waaw World Assembly of Muslim Yof di WAMI ñu gën ko ci assemblée mondiale de la jeunesse musulmane jot nañ ñu leen a jox seen i lijaasa gannaaw nag renforcement de capacité boobee soxna Khady Diatou Diallo inspectrice d'académie bu Dakar ñu teewlu ay kàddoom ak Younousa Baldé li nga xam ne moo ñu permettre ñun daaw ak ren ñu mën a former suñu jàngalekat yi di renforcer seen capacité daaw ba ñu defee évaluation bi bu fekkoon ne objectif yi ñu doon poursuivre jotuñu ko kon den du am loolu moo tax ñu depuis le 2 novembre euh, gis nañ jàngalekat ci préscolaire bi élémentaire bi moyen bi ñëw nañ euh, ci fi au niveau de l'IA ak ci au niveau des IEF foofu lañ doon def formation yi tey wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax euh, objectif yi ñu doon euh, wut euh, topp objectif yooyu atteindre nañ la ñu dali sa golf sud ak établissement scolaire yi nga xam ne jamono ji dañoo màgget euh, ndax nag euh, màgget nañu te euh, kenn defaruwaatu leen te loolay bokk na si jàmbatu kaskan wa sa golf sud it feebar faju doom bu góor la fa ndax poste de santé ba nga xam ne ni amul benn matériel suuf sa na ñu koy caxat caxatee loolee doon na lu metti coordonnateur départemental bu république des valeurs nekkit candidat bu mairie bu commune ba ci ab caravane la yëkkati yooyu la kàddu Mamadou Aw ñu teewlu ko nanga ko baka yoko ndaw golf si du ñoo jug ne ren mbir mi changé sunu école yi sunu doom yi di jàngee boo ci duggee da ngay rus boo siggee xool asamaan si nga gis au lieu nga gis ay ardoise sunu poste de santé yi fi nekk kun kenn ñame fu yóbbu sa njaboot ndax boo fa demee di nga am lu la métti parce que doo fa ñamee bàyyi sa njaboot pour ñu faju loolu kañ lay jeex ay infrastructure digne de son loolu la ñu bëgg sunu marché yii kenn ñamee fu dem dugg bis buy taw parce que boo demee da ngay xuus ba sonn terrain bii ngay seen sama ginnaaw mooy terrain AMO 3 mooy un de rares terrains yu des biir golf ndax lu tax suñu élite jël na ñeneen terrain yi sàcc ko jaay ko ñeneen stop on di gis na terrain bi ci ginnaaw am na ñu fi ñëw bis bu nekk ñu ngi ñëw di mètre rek a waat terrain bi dañ ma ko jaay dañ ma ko jaay jox ay tur yu nekk ci mairie bi ñu ñu xam ñu ne terrain ñoo leen ko jaay ñun gis nañ kayit ci benn domaine public ñu lool on interpelle la plus haute autorité de cette ville ñu àddu euh, jëmale ci liñ ko doon euh, waxtaanee le député du peuple mu di charte de non violence bi nga xam ne nii bëri na ci euh, ñu nga xam ne yenn ci ay politique yi nangu ñu ko ku ci mel ni ko Ousmane Sonko ma wax ne kon du ko xaatim loolee nag bettul président du cadre unitaire de l'islam moom moomee mu ngay dëggal ni kon nag ñoom proposition rek la ñu mën a def dinañ proposer nag waaye politique si boppam ñoo ci war a def contenu kon nag ñoom ci boppam ñoo war a xont dañu koy xaatim am déet Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu cadre bu kuréel googee ñàkk nag ay kàddoom dinañ ko teewlu si suñu yeneen jotaay yu xibaar Birahim société civile bi dañoo divisé ci li nga xam ne moom mooy kàddu yu euh, Ousmane Sonko ñeneen ñi nee nañu euh, nañu ko teg fa ñu ko war a tegee nañu am nag nañu ko déggee waaye du kàddu yee fit na ku si mel ni mu Ndiaye Cissé. waaw mais euh, xam nga dem maa ngi koy wax Mambey c'est que wax bu nekk dafa am déggin maître Ablaye Wade moo doon wax ndaw ñi ci ay jamono fële ca Thiès bu leen alkaat yi dóoree. jël leen chaîne velo ngeen fayu ce n'était pas benn appel à euh, nu ñu koy ci la violence mais ci benn wàll c'est une manière de dire à ceux qui sont en face ñi jàkkaarloo ñoom attention ñun tamit am nañu sañ-sañu def la ngeen di def. mais waa d'accord mais moo tax ma ne. moo tax ma ne ki nga xam ne dóorewul mais est-ce que dina jar ñuy génne seen mm-hmm, vélo. Mm-hmm, mm-hmm. kan mooy dóore kan moo yore li ñuy wooyee le monopole de la violence légitime c'est l'État malheureusement mu am politique bu ci nekk gis nañ fi ay jamono si mois de mars ay nit ñoo xam ne dañ leen di catégoriser ay nervi dend ak ay forces de l'ordre yoo xamee ni man ci ay nit ñoo xamee ne xam naa leen di ay forces de l'ordre dañ dañoo rusoon ndax dañu dend ak ay nit ñoo xam ne ay nervi lañu yore ay bant mais amuñu woon sañ-sañu wax ci dara tout simplement parce que euh, li nga xam ne moom mooy décision mu ngi jógee ci seeni autorité maanaam ñi nga xam ne ñoo leen sut doon ay policier wala ay gendarme yoo xamee ni nekkin boobu ñu nekkoon ak ay nerf yi neexu leen woon mais amuñu sañ-sañu wax ci parce que bu dee da nga ñëw taxaw yow ki nga xam ne moom mooy sa chef unité waxul du yow mi nga xam ne benn simple euh, gobi nga wala lu mu mën a doon yaa ciy wax ça veut tout simplement dire que l'équilibre la terreur moom le euh, Ousmane Sonko yëkkati ci wàllu kàddu ne ni du ma signé loo xamee ni mën naa ko signé tey ñu ne yaa ko signé devant toute la nation sénégalaise nit door la te doo am sañ-sañu fayu parce que da ngay jàpp ni signé woon naan lu ñuy woowee charte de non violence ah, ça veut pas dire ça veut pas dire que ça veut pas dire que mm-hmm. il prône la violence ou l'opposition prône la violence mais ça veut juste dire attention yéen ñi nga xamee ni yéen a nekk ci nguur yore li ñuy woowee monopole violence légitime xool leen na ngeen di exercer seen violence ndax ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ci opposition am nañu sañ-sañu fayu bu fekkee ne da ngeen ñu dóor ci lu dul yoon mais au-delà de propos Ousmane Sonko charte bi ci boppam yaa a quelque chose à redire ci biir xam nga mooy lan bu dee da nga ne société civile nga bokk. cadre unitaire de l'islam wala beneen cadre bu mu mën a doon nga ne dama bëgg a taxawal benn charte balaa ngaa taxawal charte bi waxtaan ci ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi war a moom boobu la charte xam nga dañ fi waxoon li ñuy woowee euh, dialogue national mu am ci ay volet politique commission politique commission yeneen ak yeneen daanaka ci dialogue national boobu lépp ci politique lañ ko yemale mais euh, rupture wala échec u dialogue national moo indi des gens la société civile muy ay religieux wala yeneen di indi benn sas boo xamee ni loolu waroon nañ ko déggoo ci biir dialogue national bi déggoo ci biir dialogue national ne ni dañ dem ci ay élections libres et transparentes ci biir dialogue national bi ñu ne ni lépp lu jëm ci wàllu violence dañ koy bannir et du côté du pouvoir et du côté de l'opposition kon heure bi duñu fi nekk di waxtaanee ay wàllu charte pour la non violence de manière tacite wax naa ko démb de manière tacite képp kuy acteur politique nga bokk ci pouvoir nga bokk ci opposition ci sa biir xel signé nga charte bi ci sa biir xel signé nga ko donte du kayit bu ñu la jox nga war ko signé xaatim ko ci suuf mais ci sa biir xel ak ci sa biir doxalin signé nga ne du ma dem ci wàllu violence mais nag euh, gis nga tubaab moo naan qui veut la paix prépare la guerre loolu mbirum euh, wax la boo xamee ni mais ça tout son sens dans ce dans ce contexte actuel ça veut pas dire que dañuy dem guerre Sénégal buy armé wu c'est pas que dafay demi guerre mais dafay armé wu pour taxaw xaar bu fekkee ni guerre dafa am ñu dal ci kawam mu mën a am nu mu riposter mais ça veut pas dire que on est un pays de guerre wala un pays boo dañuy dugg ci wàllu guerre c'est exactement la même chose ci lu jëm ci wàllu opposition ak pouvoir maintenant c'est au hommes politique muy pouvoir muy opposition ñuy fàttaliku nii d' abord askan wi ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy fal ñoom ñooy folli du question Macky Sall ak régime am ñoom ñooy dóore ñoom ñooy def nangam di wane violence wala di wane terreur pour que opposition bi noppi wala opposition bi moom mooy wane violence yi wane terreur pour daanaka euh, jaxasee li nga xam ne moom mooy carte gi mais c' est aux populations de dire à tous les hommes politiques stop attention am leen sañ-sañu def nangam. am leen sañ-sañu indi ay nervi ci suñu kaw am leen sañ-sañu taal suñuy oto am leen sañ-sañu taal ci fa nga xamante fa la ñuy jëndee di ci suturloo wala fa ñuy fa ñuy liggéeyee chaque jour mooy doon charte wala euh, signature tacite boo xamee ni tout le monde s'accorde à dire que violence soxlawuñu ko la violence moom on en a pas besoin en politique on en a pas besoin dans surtout dëkk boo xamee da nga naan da ngay jéem a defar sa bopp mais ñu signé ñu bañ a signé mais nañ ko doon na doon loo xamee ni ñoom ci seen comportement muy opposition comme pouvoir dañ koy doxale ci la nit ñi di jàpp ne ñii bëgg nañ violence wala bëgguñu violence mais c'est mhm. pas une question de charte à signer ou pas voilà euh, euh, le du peuple en tout cas lu mu ci mën di doon président bu cadre unitaire de l'islam nee na wax ji bett ko de toute façon ñoom dañuy proposer rek te ñoom li leen tax a jóg moo di wote jàmm. xam nga ñoom am ñu benn loi benn loi wala juridiquement loo xam ne moo leen tënk comme dialogue bi ni ñuy tënk ay tomb yoo xam ni moom la ñu demee ci élection c'est-à-dire que ñoom euh, ni àdduna mus di doxee muy ay mag yuy àtte àtte nag bokkut ak sot àtte bokkul ak sot. Euh, te defe naa ni ñoom bépp état bépp askan askan laay wax sax peuple al mujtama bu mu mat di doon bu fekkente ni bi séntu nañ ci avenir bu dëgër bu fekkee ni ñëpp jàmm la ñu war nañu am benn association wala benn kuréel bu mel ni waa waa waa waa lu ñu tudd sax cadre islamique parce que ñoom euh, day fekk xiifuñu day fekk maruñu day fekk ñu nekk ay kilifa day fekk ñu nekk ci ñu jàng day fekk ñu bokk ci ay kër diine léegi bu ñu ñëwee charte bi ñuy indi amul dara lu ko tënk ci wàllu yoon mais dañu naan Birahim pour ñu rafetal man de lii laa gis ni boo ma ko lee dina tax ma dem waxtaan ak Mambay Mambay boo signé dina dem tax ma waxtaan ak Mantulaay Mantulaay bu siñee dina tax ma waxtaan li ma ci jublu mooy mënumaa tey Birahim bu dóoree Mambay bu bëggee fayu mu fayu. Mhm. waaye li ma ci bëgg mooy au moins ma ne lii xew de xew na. waaye ñoom ñëpp kenn ku ne jàmm nga bëgg ci senegal li xew nag xew na moo tax ma ni amul dara lu mën a tee ñu signé ko et li ma waxoon démb. wax ko démb ci ngoon moom lay waxaat bu ma jege woon Ousmane Sonko dama naan ko signeel charte bi. sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si moo ci nekk ibnu sëñ Abdou Aziz Al Amin professeur Djim Dramé imam Cheikh Gueye ak ñeneen ak ñeneen ñooñu topp ci politique yi ñooñu politique ay kilifa lañu ñooñu xam nañu tënkuñu lu waa xam nañu Ousmane Sonko signé ko tey mëntatee bu ñu ko dóoree ngoon mu fayu bu bëggee. xam nañu ni Bougane signé ko tey mëntatee bu ñu ko wokkee ci bëccëg gi mu fayu. mais dañu ni comme coow am na. mën lii ay xalaat la yoo xam ne ñun ñu féete ci këru diine yi am xam-xam jàngat ni réew miy doxee te jàmm dong yitteel ñi waaye waaye kaay lañu toog waxtaan bu fekkee jot gi mayu leen ngeen toog waxtaan ngeen may ma ma ñëw waxtaan ak Mame Mbaye waxtaan ak Birahim mag ñi bu njëkk bu soow musaan am diggante jëkk ak jabar bu ñu toogee dañ naan soxna si demal nga baalu ko te bul wax lu ngeen jotee bu ñu demee ba ñëpp tas ñu soog a ñëw ni waa ji hey nii ak nii ak nii ak nii ak nii cest à que boo signé tey ñu dóor la tey nga fayu du tee du tax ñoom dañ naan ah xëy na jamono wala politique moo doxee noonu kat waaye ñoom ñëpp signé nañu charte bi te ñu mhm. ñëpp kenn ku ne ubbil nga ñu bunt boo xam ni même dóorante ak fayante bi am sax du tey ñun ñi mewaat nañu defaat ay démarches ñëwaat ci waxtaan demaat fee waxtaan mais boo nee catégoriquement signé wu ma c'est-à-dire du du cër ci bu fekkee xam nga ñi nga xam ni ñoom ñoo ñoo ñoo nekk ci cadre islamique lu cër mhm. c'est-à-dire que man damay damay taxaw yor sama yat ngànnaayu boo ma wokkee ma wokk la mais bu mag nekkee fee ni ma kaay signé damay signé man rafetlu ma ñàkk a signé bi mhm. parce que foofu la senegal toll parce que signé ko mënta tee bu ñu la wokkee ngoon nga wokkaate mais signé ko pour honorer ñi nga xam ñoom ñoo ko def parce que Sénégal fu nekk nii ku mu ci man di doon boo jàqee bu kilifa diine yi waxee te kilifa diine yi ñii ñooy seen i ndaw. kilifa diine yi charte bii nii kër gu ne am nga ko la fa représenté yi wax nañ ba noppi. wax nañ ba noppi ñi ñooy. c'est-à-dire que xam nga li ñuy signé sax ma ne signé bi ak baaña a kilifa diine yi ñoo njëkk a wax. sëñ Mountakha Mbacké Bachir daf ko dalal moom Ousmane Sonko ak yeneen i om politique lan la leen wax ci gannaaw coowal mars bi li nga xam ne moom moo fi xewoon bëggatuma mu xew fi ndax benn bakken bu rot euh, maanaam. musiba la massa lu tolloog fukk ak juróomi bakkan yu ndax lan mbirum politique daanaka daf leen a sabonné c'est le mot que tout la presse en repris le lendemain tout le monde la sabone tous les hommes politiques sëñ Babacar Sy Mansour tànkam jógul ci euh, wax jàmm def jàmm bëgg jàmm ci biir réew mi bu dee ñooñ ñooy kilifa yi ñi ngay woowee euh, ñi ñuy woowee tey peut-être seen i seen i euh, mandataire muy ñoo xamee ni macha allah seen xam-xam ak seen kenn du ko naatable ay docteur Euh, Guèye muy euh, euh, ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ça c'est tout à normal mais je pense man personnellement que kilifa diine yi bu dee ñoom ñoo wax. kenn déglu leen politique yi dégguñu leen. Mm-hmm. yaakaaruma ne signature moo leen di. mooy kon lii du bett kenn. xam nga mais xam nga Ibrahima yaa ngi def grande édition depuis dix depuis six heures trente ba léegi. Mm-hmm. ba neuf heures. six heures trente ba neuf heures ñaata temps la. Mm-hmm. et pourtant neuf heures dix heures di nga defaat ay brèves. pour kilifa diine yi wax nañu waxaat nañu te seen wax impact na quand seen wax mm-hmm. impacté na de. xam nga li may bañ a dégg mooy kilifa diine yi wax nañu kenn déggu leen. bien seen wax impacté moo taxoon fitna ji dakk mm-hmm. mais n'empêche nag am ñeneen ñoo xamante ni bi parce que itam kilifa diine yi mënuñu la tey. Mm-hmm. dañu am mit bu ñuy garder. mënuñu à chaque fois ñu dégg leen ñuy wax. ay kilifa la ñu amuñu jot mun a ñàkk ñeneen ñu nekk ci seen wet tënk ci wàllu diine nga xam bu ñu waxee kilifa diine yi duñ leen weddi ñooñu di def ay jéego yenn saa yi yenn saa yi ñu jékki dem ci xalif bi gis ko ni ko jéemo jéemoon nañu def nangam kat ak nangam bi xalifa bi ñaan na leen leen loolu rafet na ma ni waa cadre bi li ñu nekk nii amul dara lu ci ñaaw. parfaitement ku jàmm yitteel. dox tant que continuer du teeku la wax nga wax ko. yàlla baax na. ay ayca local 2022 mouvement citoyen waa gox bi ñoom nag la ñu jëlub dogal moo di jàppale du Gueye euh, ngir nag mu nekk maire bu jiite caaroy kaw euh, mouvement boobee nag dañoo organiser ab rassemblement politique euh, leader bu convention citoyenne neneen nee nañu nag mooy candidat bu baax bi ngir commune ba Moussa Ba du ñàkk ay kàddoom dinañ ko teewlu si suñu yeneen jotaayu xibaar askan way yeewoo sa ñandu ba localité la bu féete ci juróom-ñetti kilomètres ak Kandiaye département bu Vélingara ñoom nag amal nañu doxub ñaxtu village boobee la nekkin gu jàppandi dund gu ñoŋ ndax foofee euh, seen ak dund daal dee moo ko gën noonu mas nañu ko jàppee ñoom nag euh, euh, nee nañu nag lu ji njàkk autorité ya nekk ca gox ba ñoo di njàkk ndax xam nañu jàmbat la te kenn faalewu leen sa ñu teewlu sa ay kaddu yu tukkee ci Saliou Sow Pape Kajali yi moom moo ko taataan suñu nakaar nag fii nii si ñandu ba lenn rek la dañoo tëju ndax fu ñu nekk nii mënuñoo dem mënuñoo dikk ndax tali bu yàqu ak pax yoo xamante ni oto bu fa jaaree sa sa bakkan sa bakkan sa mën na fay xaj ñu ngi si président Macky Sall mu jàppale ñu dimbale ñu ndax ñu mën a defar tali bii nii fii ñuy génn nga xamante ni suñuy jigéen suñuy suñuy rak suñuy yaay yëpp bu ñu bu ñu amee problème de omb fii la ñuy aw jaar fi dem hôpital te foofu fii nii boo fi jëlee ko omb balaa nga yegg fi nga jëm xëy na mu mu am problème si tali bi muy fi barrage bi ne barrage ñandu ba nag ñun tur leen si am nu mu ne bay si kii si si kii bi nu mu tudd si barrage bi ndax ñu mun si njariñoo ñun tam suñu jaboon mu am fu ñuy dundee ndax boo gisee xale yëpp di di jël fii gaal yi di dem Espagne di dem Italie loolu yëpp wuti liggéey la rek moom la ñu bëgg na président taxawuñu si loolu suñu xale yi tamit bokk si ñu ñu mu gën a ñu ñu gën a mën a ràññee si jàng mi ndax boo gisee fi école bi soox xamal ni ñàkk ñàkk taxawaay la ñàkk taxawaay boobu nag bokk na si ñun ñu war a am CM ay ca ñu waxtaanee ay coow wala sax ay coow yu nga xam ne tàmbali naa juddu euh, député du peuple ñu ngi doon waxtaanee démb mu di CAPS bi nga xam ne mooy coalition des acteurs de la pêche coow tàmbali na see dugg président bi nag euh, yëkkati na si ay kaddu di tontu ne mu ngay xam ne ñooñee yàq moo leen tax a jóg ñu sukkandikoo ci Alioune Thiam nee na CAPS bi lu ko tax a jóg du lenn lu défendre intérêt nappkat yi waaye it xeex nañu caxat caxatee euh, géej gi Alioune Thiam la ñuy teewlu ay kàddoom ak Alioune a Sonko. CAPS tey organisation socio socio professionnelle yi am solo yépp si Sénégal mhm. mi si biir CAPS kooku nag mu mënoo am ba pare loolu di wax ak koo xam ne kenn xamul fu mu jugee très bien état du Sénégal ñu ngi lay lancer un appel mhm. boo bëggee napp gi dem sa kanam secteur bi changé solution am si jafe-jafe yi waxal ak waa CAPS la solution ñu ngi wax ne lii ñuy def tey boo demee Ndar ak li ko wër ñu ngi koy def boo demee Thiès ak li ko wër ñu ngi koy def mhm. soo demee boo demee Mbour ak li ko wër ñu ngi koy def parce que dañu jugé ne CAPS xajul xajul fenn mu ngoog nag ñu ko taxawal coow li bari ci mu di CAPS la leen tax a jóg nee na ñu euh, aar nappkat yi ñu bañ a caxat-caxate it également suñu géej gi xam nga Sénégal lan moo fi neex ma mbay mooy boo xësee teg benn mbir moo xamee ni c'est pour euh, tout le monde c'est pour la communauté du ci am du du di nga ci gis ñaar la ñett ñoo xamee ni mhm. euh, dañuy ñëw jéem ko yàq gis nga ñoom ñi mhm. euh, ay nappkat ay mool xamante nañ seen biir bu ñu demee ne ni diw la ñu jël taxawal benn kuréel boo xam ne moom mooy ñu mën a waxal ci kanamu gouvernement mhm. ñoom ñi nga xam ñoom ñoo taxawal boobu le kuréel xamante nañu xam nañ ko ci bokk xam nañ ko ci bokkul métier bi ñu nekk di journalisme di nga toog ak nit kooku ne le journaliste la te yow xam nga moom xam na ndax journaliste la walla du journaliste. Mhm. wala mën nga ko boole ci métier bi ou pas. xam nga lan moo ci am solo mooy ñoom li nga xam ne moom la ñuy ñaxtu bëgg tamit ñu defaral leen ko muy ci wàllug li ñuy liggéey di ci suturlaw di ci suturaal ay njaboot euh, ñu mën na fexe ba jàppale leen te ñu am li ñuy woowee un répondant. mooy kenn koo xam ne gouvernement tey ministre de la pêche bu fekkee ne dafa am ku mu war a waxal mu xam ne diw moo war a doon que may waxal directement parce que moom moo yore mbooloo moo xamee ni su ma waxee wala su ma kàddu bu demee ci moom dina dem ci mbooloo mi c'est ça le plus important mais ay euh, kuréel taxaw na beneen kuréel taxaw na ni non non kuréel bële euh, neneen la demee qu'on arrête de tout politiser au Sénégal malheusement dañoo politiser lépp métier bi presse bi ña ngi koy politiser nga jël euh, mbirum napp bi ña ngi koy politiser li mhm. nga ci gis koo xam ne dafay jàpp ni mbir mi mbirum politique la mbirum ah. dama am mbooloo wala mbirum ce n'est pas ça l'histoire c'est que il faut que arrête de tout politiser au Sénégal lépp lañ politiser jàngale bi ñu ngi koy wax sànq dañ ko politiser jël politique bu ban duggal ko ci biir nga dugg ci presse bi ñu politiser ko nga dugg ci wàllug nappak euh, sàmm ak mbay lépp ñu politiser ko parce que am nga peut-être euh, un leader politique bu nekk sa ginnaaw ne la fexeel nga jël sa mbooloo yow mi nappkat bi mhm. Mhm. indi ko ci man parce que tu es un leader politique il faut que ñun ñuy suñu bopp muy euh, tous les acteurs yi nekk ci ci base bi ñu bañ loolu bañ ñu dugal leen féewale leen pour des intérêts politiques mu ngoog mu mel ni kon naka lañu ñu ko taxawal coow li bari bari na ci est-ce que du faux départ. c'est-à-dire moo lay woon moo lay woon Sénégal doo xam lan la ñu bëgg te toujours ñu ngi ñuy wax ñun ñuy dénoncer ci suñu kàddu ñu ñu ñu nekk ci presse bi quoi euh, ni ñuy def suñu géej gi ni ñu ñuy sonale ni napp ñu doxul mais léegi pourquoi ñu bëgg a séparer armateur bi ak kii def pêche artisanale fekkee dañu bëgg défendre pêche bi de façon globale Mame Mbaye Ndiaye am na bateau man gaal laa am. mais ñoo bokk fi ñuy daani doole muy géej gi nga xam ne kenn moomu ko def naa suñu intérêt mooy ñu xeex ba étranger yi nga xam ne yàq nañu géej gi ñu xeex ba politique bu échec bu gouvernement bi ci wàllu géej gi ñu joxante loxo ngir loolu mën a soppeeku mais mais mais CAPS ma nga fee kaneen ma nga fee et euh, Alioune Thiam benn objectif bi mu am man dama dama waxtaan ak benn benn nappkat. ak benn journaliste. Mhm. pour découvrir la personne ci pourquoi rencontre yooyu. parce que journée de la pêche doon na jaadu organisation bi nga xam ci nan lay tegee pour nga am ci au moins ay armes yoo xam moom nga koy commenter mais tu vois exactement bokk na si ñi nga xam ni dañu am expérience ak connaissance ci wàllu napp. donc ñu def ay organisation Saint-Louis euh, Thiès Mbour Dakar pour trouver solution mais bu ñu defee rencontre ba noppi journée de la pêche pourquoi ñan ñan ñoo gën di sànni ay xeer ci ban ci ban cadre ci ban ci ban cest à fexe nekk benn. doxal politique bi waa CAPS indi parce que foog ñu taxawal association journalistes yi am nañu APIX euh, nu tudd euh, SYNPICS. Euh, SYNPICS. sànq yéen a ngi woo waa COSYDEP sànq yéen a ngi woo yeneen syndicalistes yi cest que kuréel bu mu mën doon ci Sénégal war naa am benn xeetu benn benn benn benn bànqaas boo xam moo koy xeexal. benn bànqaas boo xam moo leen di woo ñuy ñëw kenn ku nekk joxe xalaatam ñu daal di tënk xalaat yooyu def ko ci benn réforme mu nekk téere bu ñuy ku mën a doxal et CAPS mu ngi ci lool loolu pourquoi di dénoncé waat moom def naa ne xeex bi ñu war a bokk ñoom ñëpp tey mooy fexe ba géeju Sénégal mel na meloon am ay jën comme ni mu amee woon ay jën bu boobaa ki am bateau ki am gaal ki am locco ñoom ñëpp ñu daañu bénéficié wu mais bañ jël suñu géej gi jaay ko ba noppi gëmloo nit ñi politique aquaculture bi nga xamante ni bii doxul bougéwul demul fenn ci Sénégal. yéen kan moo xam ci yéen ya jën ci ay mbalka nandagu leen ko kan moo gisati léegi jënu dex euh, euh, doxati Sénégal ñu koy wax jënu waas ta doxul géej gi lañ fi am ba léegi ni géej gi amagul lu ko mën a ko mën a changé mais ñi ciy daan mhm. seen doole nañ joxante loo xam nekk benn mais pas ay sànni xel ay CAPS mais créer association comme CAPS. boo gisee neneen nga waxe ko mais pas di attaquer ay nit yoo xam ne ñu liggéey ba noppi. looloo yàq soxalewul napp mi jaajëf le député du peuple rendez-vous 13h ci 89.7 Zik FM. incha allah incha allah maam tës tamit. waaw tës ci kanam tuuti incha allah. voilà Birahim Diadio Touré. ba ca réunion ba incha allah. ba ca ñu nuyu baax euh, Madani Si moom dañuy teelu fajar gu jot syndicaliste bi. Mm. ayca ñu dalal Pape Anta ci tàggat yaram. jaajëf Assane Diouf tamit ñu koy nuyu bu baax. Ah, moom bàyyi na xorom si léegi de day suukar. Ah, waaw waaw wax dëgg affaire yi noonu la. Assane Diouf ñu koy nuyu moom dañuy teewlu fajar gu jot ak le grand hall. bu RTS. borom jam si Teex Dugar. borom département bi. naka yi tey. alhamdulilah baa lépp jàmm. waa ñu ngi sant football Ligue 1 GFC ambition gros cette saison moom moom fu mu xool sori na de. ah waaw en tout cas seen ñëw nag euh, ci euh, l'élite bi dañ ko nag bëgg a wat waat ndaxte soo xoolee sax ci derby de la banlieue defoon nañ match nul seen diggante ak AS Pikine en tout cas lu ci mënti am daal ñoom fas yéene wuñ nag toog di xool. en tout cas bëgg nañ nag def seen kéem kattan bo bokk nag ci club yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci saison ren gile ci leeral ñu ci ak euh, Soxna Fall. mu ñëwaat ci élite bi ci football wax ay ambition am GFC daal di rejoindre Ligue 1 bi saison bi mu ubbi bëccëg bu njëkk bi tenir en échec AS Pikine. ñëwaay dafa ñëwaat mais pas pour jouer les seconds rôles pour jouer les premiers rôles donc ce qui veut dire simplement que nous sommes engagés sur sur euh, sur sur toutes les compétitions et nous comptons gagner toutes les trophées. Guédiawaye ne dafa bëgg jouer les grands rôles. Euh, c'est une équipe professionnelle de, de première ligue donc euh, nous serons sur tous les tableaux incha allah avec euh, tous les supporters de Guédiawaye. ngir mu matal boobee challenge du bàyyi benn détail mu am ambition bu yaatu enthousiasme bu fort ak audace bu ngande équipe bu Guédiawaye bi ne préparé wu na bu baax ngir jël lépp moo xam championnat la wala coupe ayca ñu waxtaanee ko Ligue Pro bi ñoom nag euh, nee nañu mbégte la ñu am ci première journée bi. waaw première journée bi nag soo koy xayma jot nañu si dugal lu toll ci fukk ak ñetti but daanaka stade yëpp nag moo remplir doon mu nekkoon nag journée boo xam ne euh, kii di euh, directeur exécutif bu nag Ligue Pro di Amsatou Fall rafetlu na ko bu baax a baax gis na ni nag dinañ def seen kéem kattan ba journée bu nekk ñu amal ay joŋante yoo xam ne dina nag mën a indiwaat public bi ni ki noonu sponsor yi ci stade yu Sénégal yi Amsatou Fall yi la kàddu la dénk Soxna Fall. dañu bëgg que suñu match yi nekk des des spectacles agréablement buñ koy suivre mu nekk des spectacles yoo xam ne day drainer du monde parce que kii sponsor bu ko gis dana ne ah mais il est intéressant que mun man may may investir dans le football local parce que c'est ça qui mooy mooy xëcc les sponsors les sponsors ont l'habitude de voir des terrains qui ne sont pas remplis mais aujourd'hui celui qui voit ce match dina ne ah war naa mën a associer wu sama image l'image ak le football professionnel pour ça et c'est ça c'est ça l'enjeu l'enjeu c'est faire de nos suñu compétition yi mu nekk des compétitions bien vues des compétitions bien suivies où il y a de la mobilisation où yoo xam ne dana am animation du bout de bout et c'est ça qu'on qu'on veut et bëgg nañu en tout cas ci en termes d'organisation en termes également disons d'animation bëgg nañu daal match yeneen yenen yeneen yeneen yeneen match yi ci championnat bi mel nii parce que loolu mooy tax public bi mën a ñëw loolu mooy tax égal soir sponsor yu mën a ñëw te loolu mooy indi xaalis boo xam ne xaalis boo xam ne ligue bi soxla na ko lépp trop trop trop trop. lan mooy programme mu euh, Ligue des Champions cinquième journée bi tey jii. cinquième journée bi kon tey jii nag euh, ci ngoon ci groupe E bi 17h45 Dynamo bu Kiev mooy dalal ñi di waa Bayern Munich bi nga xam ne jot nañoo qualifié ba noppi 20h nag FC Barcelone la ak Benfica ci groupe F bi 17h45 Villarreal bu Boulaye Dia mooy dalal Manchester United 20h Young Boys Berne. ak Atalanta bu Bergame la ci groupe G bi vingt heures FC Séville dina ci laale ak Wolfsburg Lille ak Salzbourg la groupe H bi Chelsea moom mooy dalal ñii di wa Juventus bu vingt heures jotee Malmö ak ñii di waa Zenit Saint-Pétersbourg lay doon jëm nag ci groupe H bi. lan la mën a jàpp ci basketball tournoi national féminin bi. waaw jàppale nag kon équipe bu Guédiawaye basket académie moom ni ki démb nag gannaaw ba mu daanee union sportive bu polytechnique bu Thiès 67 43 moo ko permettre nag moom mu assuré ngir nag euh, egg ca final ga ni ki doon tamit accédé ci nag euh, division 1 bi kon jëm ci wàllum basketball ci jigéen ñi ci beneen wàll ba nag euh, équipe bu Flying Star bu Padois bi moom moo daan nag Pikine basket club 57 40 kon ñu jàpp moom mi moonte ne nag euh, ngir euh, saison ren gi la euh, final gi nag dinañ ko amal ni ki tey bu 17 h foofu ci stadium bu Marius Ndiaye fas yéene dox ci diggante Flying Star bu Patte ak Guédiawaye Basket Academy kon maa mbay li ma fa gënoon fës ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf Pape Mante jam city ak Dugar pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar li yéen